ndéem ñu ngi doxal ngor lépp luy seen mbégte suñu mbégte la war a doon waaye itam foo leen amee naqar coow li coow li nag li indi wax jiis te mu waral sëñ Mame Mbaye laay yëkkati ci ay kàddu d'apaisement coow li coow li dañ ko duut baaraam mooy aéroport bi état bi bëgg a up tong tong ko séddoo ko bàyyi fi njaboot Seydina loolooy wax ji loolu nag am na information yu ma leen di jox ndax gëstu nañ ci ginnaaw bi nga xam ne Seydina Issa invité woon na ma ca point de presse ba mu def nañu ay réunion secret luy ndeyu secret xanaa la xanaa la nga dara dox la nga dara wax bu jàmm réunion secret boobu nañu fa lal pexe li tubaab bi wax amal amal amalgame mooy surtout yéen taskatu xabaar yi xam ngeen li may wax am na fi ministre de l'intérieur bu siiwoon tey amoon xorom daan yëkkati ay kàddu ci boobu wàll ñu di ko wax Charles Pasqua nee na un état su bëggee narmeelal benn dossier bu ko bëggee étouffer technique am mooy daf koy fab dugalaat ci beneen dossier fob beneen dossier dugalaat ko ci biir fobaat beneen dugal ci biir ba dootoo mën a def ra xaaj ak seen ci pexe boobu la gaa yi nekk amalgame bi mooy ñu ngi bëgg a dendale litige foncier aéroport bi di titre foncier 4407 di ko bëgg a dendale avec la loi 64 46 du 17 juin 1964 Senghor a ko fi indi woon ñu di ko wax la loi sur le domaine national jaxase boobu la gars yi bëgg a def te san ne passera pas que bokkul bokkul domaine national ak lii xew ci aéroport bi c'est différent domaine national pour fàttali leen li taxoon Senghor yëkkati ko c'est parce que suñu ay maam yi lébu dafa am jàggante gu ñu amoon. mooy suuf ya ñu denoon ci seen i baay seen i baay doon na ko ci seeni i maam ay propriété coutumière la yoo xam ne amul immatriculation ay ndono la Senghor dal di yëkkati kàddu ci mois de juin 1964 daal di def communiqué ne ñu ngi may bunt famille yi nga xam ne dañ doon donnante ay suuf ba mu egsi ba ci seeni génération ñu ngi leen di may bunt pour ñu régulariser lu waay indi ci kayit rek loo mën a indi baax na kayitu ndono attestation d'héritage ngeen rapproché wu des service du cadastre et des domaines ñu immaturité ko ngeen am titre foncier loolu moo taxoon a jóg la loi sur le domaine national waaye ba état bi defee boobu communiqué 1964 média yi développé wul woon benn journal la fi amoon mooy Paris dakaar ginnaaw gi moo tudde dakaar matin tudde tey soleil benn rajo fi amoon di rajo Sénégal moo tax message bi jàllul am na ñu ko déggoon nag daal di daw ci service des domaines et des cadastres sàmmonteeg sart yi ñu daal di immatriculer seen terrain ñu am seen titre foncier dellu toog waaye majorité bi yëguñu ko sengoor yokkaat délai bi ba décembre 64 dëgg la nit ñi gën nañu xaabaabal ñëwaat waaye ba tey majorité bi. régularisé wu ñu seen suuf waaye terewul ñoo ko moom léegi lan la état bi def état bi ne ah jeex na jox naa leen ñaari dele jeex na kon ñi immatriculé wu danaa fab l'ensemble de vos propriétés foncières coutumières ñu yàkkal ko état bi daal di ko déverser dans la propriété foncière de l'état loolu mooy loi sur le domaine national état jël ko def ko moomeel suufu jàmbur de ba pare ña ko moom ñu jox leen ay permis d'occuper sëñ Issa dafa mel ni ma jël sa suufu maam ba noppi jox la permis d'occuper nee la abal naa la ko loolu mooy loi sur le domaine national c'est la plus grande injustice foncière du Sénégal indépendant ba pare nag permis d'occuper bi c'est à titre précaire et révocable donte la suufu maam la man état abal naa la ko te saawu ko neexee jël ko loolu mooy la plus grande injustice foncière du Sénégal indépendant dëgg la nag collectivité la bu jóg na ci am na lu mu ci dox man personnellement fekk naa benn réunion le vingt 27 novembre 2007 palais de la république président de la république Ablaye wat moo ko présidé si la joxe ndigal pour ñu taxawal commission pour injustice boobu ñu réparer commission baa ngi doon liggéey ñu bari jot nañ seen titre foncier waaye ci gàttal dama doon ubbi foofu pour nit ñi xam les manœuvres qui sont en cours parce que loi sur le domaine national Senghor defar la ci jublu woon waaye dafa mujjee nekk saafara bu jur jàngoro loi sur le domaine national nag ça n'a rien à voir ak le titre foncier 4407 muy les 864 hectares bu aéroport ça n'a rien à xam nga lu tax ça rien à aéroport bi c'est une réquisition pour cause d'utilité publique réquisition mooy lan affaire wu euh, train express régional bi yéen a ngi dégg coow li fu raay bi war a jaar rek war a dugg ci toolu jàmbur wala këru jàmbur te loolu yoon moo may état boobu sañ-sañ mu gis boroomi kër yi boroomi tool yi. ne man état dama ko soxla état am na ci droit waaye bu fekkee soxla ba nga ko soxla soxla bu da koy jox ndàmpaay wala nga utal ko feneen lu toll li mu amoon kooku réquisition euh, pour cause d'utilité publique mu nekk une réquisition permanente ce n'est pas la cas de parce que aéroport bi France bi ñuy yilifoon moo ne ñu ngi jëm ci guerre mondiale bu 39 45 dal di ñëw fii en 1934 ne les forces alliées yi war a jàkkaarloog Hitler dañu soxla ci benn pays côtier boo xam ne mu ngi nekk sur le littoral atlantique benn tête de pont pour def fa aérodrome militaire avion yi mën di ñëw fii di jël ravitaillement carburant ba noppi itam léeg-léeg ñu war leen a réparer waaye ba français yi ñëwee fii daal di wax seen bëgg-bëgg ci place bii di aéroport lan la leen autorité coloniale yi tontu dañu leen ne attention suuf si dafa am borom mais comme que tubaab dafa bëgg a sàmmonteeg yoon mu ne ñan ñooy borom le gouverneur Guy Camille nee ko lébu yi ñoo ko moom. ci la autorité coloniale militaire bi dem toog ak mag yi lébu yi fi nekkoon daal di xaatim ak ñoom kayit gu ñuy wax réquisition pour cause d'utilité publique daa di ne dañu bëgg ngeen abal ñu ko parce que ci guerre la ñu jëm. lébu yabal leen ko 864 hectares 8 cent quarante mille mètres carrés loolu du lu tuuti ñu daal di ko jariñoo ba guerre ba jeexee en 1945 ñu teg ci ñaari at 1944 le pouvoir colonial militaire ne moom sama mission jeex na daal di jël suuf si jébbal ko le pouvoir colonial civil ñoo ñu transformé aérodrome bi parce que aérodrome la woon avant aérodrome militaire ñu transformé ko def ko aéroport moderne avec une fonction commerciale ñooñu ñoo dem nag ba indépendance ñëw ñu jébbalaat ko ba tey boolewu ñu lébu ci waxtaan bi ñoom ñu moom suuf si ñu daal di ko jébbalaat le pouvoir euh, administratif du du Sénégal indépendant mu daal di tàbbi ci loxo état parce que yoon dafa wax ni autant may nañu état le droit mu def réquisition forcée pour cause d'utilité publique autant le même texte dafa ni bu fekkee li taxoon nga def réquisition bi c'était limité dans le temps et c'était le cas parce que guerre bi trent 39 la jeex cinq alors bu fekkee c'est limité dans le temps soo paree ñaar moo mën ne nga delloo boroom alalam walla nga jox ko ndàmpaay état defu ci bii defu ci bee waaye terewul ba tey suuf si ci loxo lébu yi la ne alors léegi nag ñu dem ba yàgg ñu ne dañuy moderniser aéroport bi léegi dañ koy toxal léebu yi daal di dundewaat yaakaar daa ne ah xanaa nag dinañ dinañ dinañ wax ci ñun ba tey état faalewu leen dal di toxal yemuñu ci toxal nag dañu commencé may bët les 864 hectares ma jox leen information tong-tong bi mu ngi commencé le 1er mars 2013 et je prends à témoin le premier ministre Abdou Mbaye qui était là ci la seetlu bi commencé maa ngeeg benn lettre boo xam ni parce que defe nañ ne Jamra bu ne maa ngeeg lettre rek ñu defe ne liste góor jigéen ñi maa ngeeg benn lettre boo xam ne le premier ministre Abdou mbay moo ko bindoon le ministre de l' intérieur de l' époque mu di Pathé sec ne ko jot naa ay information man Abdou mbay ministre de l'intérieur euh, premier ministre que 864 hectares aéroport bi te nga xam ne léegi aéroport bi day toxu am na ñu tàmbali di ci def des actions irrégulières et des occupations irrégulières mu daal di jox ndigal ministre de l'intérieur ne ko créel ma une commission nga saytul ma loolu le premier er mars 2013 Abdou Mbaye ak may dégg waaye dañ ci teg di ay fan yu néew rek le 10 avril 2013 ñamu sasoon loolu def rapport yónnee ko ko waaye rapport ba benn liste la listu tong-tong maan ñii prévoir nañu ay villa de luxe ñii prévoir nañu tabax fa restaurant ñii prévoir nañu ay dancing ak casino kartukaay xaalis xeetu mboy yàlla yépp mu nga ca plan ba Abdou mbay jot na liste boobu le 10 avril 2013 kon tong-tong bi ak tooñ bi ak jël alalu jàmbur di ko séddoo te waxoo ak moom 2013 la commencé na ngeen xam loolu pendant ce temps ñu ngi tong-tong loo xam ne tànk ko moom Wakam Ngor Yoff pendant ce temps ana waa tànk mais y a de la mer Wakam Ngor Yoff dafa xat léegi appel Seydina Limamou yéen a ma ko gën a xam bu amee parking amu fi man gis naa ñoo xam ne dañuy gaare seen oto pas droit jël taxi ñëw bu euh, euh, nawet ñëwee inondation bi day ñëw ba rajaxe euh, Maguilène Senghor doomu Yoof doomu Wakaam doomu Ngor ñu ngay buuxante ci pantre yi dangay gis pantre 4 5 xale fanaan fa xale yaa ngi buuxante ci peron yi man gis naa kër goo xam ne xale yi ca waañ ba la ñuy fanaan pendant ce temps 864 hectares yoo xam ne ñoom ñoo ko moom seen maama ko moom ñu xañ leen ko di ko séddoo entre politiciens et hommes d'affaires daf bu fi jàll ça ne passera léegi nag am na ko wax léegi fay ñu naar ba xoromam état fayul naar ba xoromam su ma nee état nag yéen intellectuels yéen ma gën a xam loolu. état continuité la c'est impersonnel li tax ma ne fay ñu ko xoromam dafa am teraanga ju rëy bu leen njabootu Seydina Limaamu ji woon ñoom état fii la Senghor toog en 1970 dal di ne les logements euh, euh, moyen standing et grand standing mu di Sicap mu di Mermoz et cetera poste sénégalais ko. dama bëgg a pàkk bu yaatu def fa un projet de logement sociaux gars yi ne ko ah demal nga seetu lébu yi ñoom ba nañ suuf Senghor moo sol dallam ñaan audience Baye Seydi Thiaw Laye le troisième xalif de Seydina Limamou Baye Seydi daal di dawal yërmande nee ko comme que c'est pour l'intérêt supérieur de la nation danaa la jox gratuitement 364 hectares moom la Senghor tabax unité 1 ba unité 26 bu Parcelles Assainies Baye Seydi Thiaw moo leen ko jox amuñu dara luñ ko fayee lu dul njabootam di fanaan ci ay waañ di fanaan ci ay pantere ak di fanaan ci euh, ay ay euh, ay loolu c'est de la trahison ñàkk ngor la kon l'État a trahi Seydina Limamou te du leen jig bu ko defee nag léegi dañu nekk ci wutum solution ci wutum solution la ñu ne parce que solution war naa mën ne ne solution bi moo di benn rek laa ci te tout à l'heure boo leen amee euh, jataay ak Macky Sall te il faut ngeen am jataay ak moom euh, solution bi moo di dama ci benn exemple la caisse de dépôt et de consignation caisse de dépôt et de consignation xam nga bokk na ci tong-tong bi moom état jaay na ko cinquante hectares état encaissé na ci soixante milliards yaa xay état soixante milliards war na koo mën a muñ jox ko lébu yi benn solution nga na état annulé contrat caisse de dépôt et de consignation cinquante yi mën na ko daal di ko delloo le collectif pour la défense 60 milliards la encaissé mais 50 hectares la ñuy jox caisse de dépôt et de consignation wala alors état war naa mën a muñ loolu am na yeneen poche de récupération des terres yoo xam ne pour lim ko fii dafa waaye ñun ñu ngi ak plan bi yëpp alors benn solution nga ndax nu mu mënti demee solution bi moo gën bi gars yi doon yëkkati ci rencontre secret bi ma lay wax ne dañuy jël 1000 hectares. jox ko 1000 pardon mille parcelle jox ko euh, par euh, par par collectif waaye fi nga xame ni ñoom seen feebar mooy ñàkk di waxtaan ak ñi ñi seqal problème mooy dañu ko wax rek collectivité séeréer bu jas dal di jóg ne du ci dal parce que du ñu nangu état am un contentieux avec la collectivité lébu amul leneen lu muy def lu ñun communauté séeréer mu di foqati suñu propriété foncière di ko jox lébu yi c'est inacceptable loolu cuune la ndax xam nga lu tax bu lébu yi toxu woon jël mille parcelles yi mais mari de Italie dootuñu jubóog séeréer yi kon état mu ñuy mettre en mal ak suñu mbokk séeréer yi loolu du solution on rejette cette solution la 10 mille mètres de parcelle sa bëgguñu li ñu bëgg mooy li suñu maam yi moom mooy le euh, euh, le titre foncier 4407 bi nekk fii te suñu maam yi abaloon ko le pouvoir colonial sur la base d'une réquisition pour cause d'utilité publique qui était limitée dans le temps temps ba mooy guerre ba guerre ba jeex na delloo leen ñu suñu suufu maam alors kon nag maa ngi tëj nag par une proposition sëriñ bi li ma la bëgg a proposer il faut rapidement rapidement nga créer benn. comité de pilotage bu yem rek une dizaine de personnes ngeen saisir officiellement le président de la république te bu leen nangu benn intermédiaire mooy yooyu daam daam ni booy jox ah, ah, layam layam bu leen nangu kenn ku ñëw di layam layam yi seen diggante ak président vous n'avez qu'un seul et unique interlocuteur c'est le président Macky Sall parce que c'est lui le pour ça nag li ma leen di ñaan te defe naa sëriñ Mame Mbaye euh, junj ko sànq mooy euh, opinion nationale bi yëpp ils sont de tout cœur avec vous parce que ñëpp a xam nañ ne vous êtes victime d'injustice kon li ma leen di ñaan waa Jamra di leen ko ñaan parce que Jamra waxtaan naa ci ak ñoom avant may ñëw li leen di ñaan fexe leen ba bu leen toñar bi fexe leen ba bu leen toñar toñar bi mooy ñu tooñ la nga def une réaction tellement disproportionnée ñu mujjee fab toor bi jox la ko te fekk yàlla ci dëgg c'est important maa ngi sant yàlla bi nga xam ne depuis la début lépp yéen a koy dox ci discipline donte lee am ngeen na xayu xor mais loolu suñu borom moo ko santaane ndax moo wax yonent yàlla Moussa ne ko booba Firawna ñëpp xam nañ ne noonu yàlla la tooñkat la jàpp askanu ban Israël yëpp def leen ay jaam de génération en génération ñuy travailler sans salaire travaux forcés ba pyramide yëpp ñoo ko tabax ba seen nattu jeexee ñu war leen a libéré suñu borom war a yónni yoon ci Yàlla Moussa waaye lan la ko wax Seydina Moussa mu ne ko la mu ne ko maa ngi lay yónni ci kàccoor bu mag a mag di Firawna mu ne ko wax dëgg la kay mu ne waaye nag boo demee na nga wax ak moom ci teggin yéen a nekk ci dëgg mais teggin gii am fii bu leen tàggoog moom na ngeen continuer am la sympathie de toute l'opinion publique sénégalaise parce que opinion bi yëpp ànd nañu ak yéen te ñun suñu làmmiñ lañ yor tàmbali naa ko démb à 2S defe naa suivre ko 2S pour sénégalais yi xam ne dañu leen tooñ a ah, comme que dañu leen tooñ nag teg leen yëpp ci teggin sëñ Issa leetar ba na gaaw dana am kuma la booleel pour mu egg direct ci président Macky Sall bañ a jaar ci borom layam layam direct. Et pourquoi c'est important C'est important parce que président dina xam ne vous êtes discipliné donte leen dañ leen tooñ c'est important parce que suñu borom dana leen gën a dooleel parce que moo wax ci téereem bu tedd bi ne ku ñu tooñ nga nekk victime d'injustice même boo dul jullit yow lay àndal kon na ngeen continuer garder boobu euh, euh, euh, discipline et je termine nag en disant bu leen nangu yéen collectif bi Yoff Wakaam Ngor bu leen nangu mukk bu agence bi antoo président ne bon je vais d'abord recevoir Yoff Layène bañ leen bu ne je vais recevoir Wakaam lank leen bu ne je vais recevoir Ngom la lank leen ne leen da nga ñuy recevoir ñun ñëpp mbaa nga bañ ñu recevoir parce que le danger le danger mooy boo leen juumee ñu recevoir leen séparément seen affaire bi yàqu dem leen yéen ñëpp et je termine en disant boo leen di dem euh, sëñ Issa na ngeen bàyyi xel euh, Wakaam Ngor Yoff fu si nekk ngeen tànn fa benn walla ñaar ci ay jigéen jigéenu tànk yi yàlla leen jox boobu barke lu waay di def te boolewu leen ci du saf xorom asalaamaaleykum wa rahmatulah